mom ak général Moussa Fall ak commissaire Yag génné char de combat yi génné dragon yi génné troupe yi barricade deuk bi yëpp foog ni nag mën nañu xokatal sénégalais ba nit ñi dootu ñu ñëmé mais dañu xamul sénégalais momu ñu réew mi liberté de circulation lañu am audience bu ñu né audience publique kuy sénégalais rek am nga sañ-sañu.